ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax ànd beeg Aladji Malick TV am na ci information yi te wóor yi service commercial numéro baa ngoogee daanaka yéen ñi bëgg ay publicité ma nga noonu mën ngeen a dàbbal ñu bu baax a baax sàkku naa ci yéen ngeen abonné waaye dañ koy commencé ak nga xam ne nag bala nañu ci entraînement Real Madrid ak yooyu ñu coppante ndànk li nga xam ne nag gars bëgg naa nga ne moom doon bëggee ak bu ngeen doon tànn kan ngeen gën a sopp ci ñii nga xam ne daanaka bëgg ngeen mu ñëw seenub club football leen moo xam Real ngay supporter moo xam Barça moo xam ku ci ne maanaam kenn ku ci ne mën nga def sa choix ginnaaw buñ leen gën a santaan nag ñu continuer tamit information yi euh, équipe bii di euh, Sénégal ni ma ko waxee gagné na lu toll ci ñetti poñ Euh, maanaam ci classement fi mu toll nii mi ci fukkeel bi ak juróom-ñaar di bu njëkk nag ci carrière équipe bii di Sénégal ba mu dee Sénégal Sénégal musut a am classement bu jigéen kon gars bu ñu jëloon d'Afrique bi match bi day tas ñu doxee dem fële ca merengay Real Madrid seetaan entraînement bi nga xam ni Luka Modric moo ko dirisi ak yi gaayam entraînement ba ngoogur gars nag ñoom ñëpp daanaka ci gàttal ñëw nañ ngir dana ñëw as lëf ma nga noonee Brahim Diaz ñi nga xam ne ñoom la àndal Nacho Fernandez ñoom ñëpp daanaka ànd na noon noonu mbégte tey ci waa minute bu tooy ànd ak kii di Bini si Junior Bini ngeen gis ko noonu gars yi nag ñi ngi koy commencé di boole ci footballkat yi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci àdduna wala ngal kàpp lu daan doon cuut capet waaye fi mu toll nii doonatul cuut capet gars yi dañ koy confirmer ndax gone gi mi ngi wane dëggantaan li mu doon international sénégalais bi nga xam ne nag dañu fee bàyyi dem ca France moom Mendy gars yi ko doon léegi nag ñëpp manqué ne ni Florentino Perez na ko ubbil aw kayit wu weex tàll wuy wane ni moom moomee bëgg naa dugg ci si biir club bi at yu yàgg-yàgg Arda Güler ma nga noonu di Güler bi góol ba tamit ngeen gis ko ga yi Real ñëpp nag ànd na noonu mbégte tey jii ci li nga xam ne mooy entraînement bu am solo moom ngay di entraîneur bi nag ma nga taxaw ni jonn di xool gars yi xool kenn ko ci nan la ngay doxale ak fa nga mane waaye loolee lépp gis naa ni tawféex la ci moom gars yi gërëm naa leen sant leen ñaanal leen jàmm ak tawféex yàlla na yàlla euh, suturaal Sénégal